loo xam ne dañuy jariñ ci suñu dund di jariñ ci suñu jaamu yàlla tamit euh, euh, émission yi nag dafa bari ay laaj yu fi ñëw yoo xam ne laaj yooyu la ñuy tontu di ko ànd ak ay boroomi xam-xam ñi baax baaxoo ànd ak Serigne Mbacke Abdourahmane moo tax ñëwaat nañ fii ci Daaru Salaam Ndaam ngir fas yéene ko jébbal laaj yi nga xam ne fas nañ ci yéene gàggantiku ci bokk yi nga xam ne laaj nañ ko Euh, képp koo xam ne nag bëgg nga topp émission bi nanga ko bàyyi xel ci MKTV wala CMT GMTTV muy Grande Mosquée de Touba muy jumtukaayu taskaayu xibaar yooyu nga xam ne daayira Muxaddamatul Xidma bi yor jumaay Touba ñoo ko yor di ci laabire jullit yi ci seen diine kon su ko defee dañuy njëkkante ak waxtu yi jox Serigne Mbacke Abdourahmane mu nu nuyu mbokk yi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 Euh, moo tax mbokk yi xëy na yittewoo laaj laaj yi mu aju ci koor kii lim njëkk laaj daf ne kañ la koor di war ak weeru ramadaan kañ lay dugg hmm. waaw jërëjëf sëñ Abdul Ahad ramadaan de ñu ñaan yàlla ñu àgg ca hmm. ñu bàyyiloo xel mbokk yi ni weeru ñu nekk di Shaaban hmm. ci la ñuy waajal ku ci amoon borob koor bu mu fayagut na ko fay ku ci nekkit nag laaj njabootam laaj njabootam ku ci amee borom koor bu mu fayagul na ko fay. ndax soo ko fayut ba weer Ramadan agsi te fayoo ko da ngay daal dugg ci ñu sàggan ñi. ñi nga xam ne bu Ramadan jàllee dañ lay wax ne la booy fay dañ lay teg ay daan bis bu set da nga joxe mudd. kon nit soññi sa njaboot mu fexe ba fay seeni borom koor weer wi euh, baax na lool wóoy ju fàttali ko fa maanaam bàyyi ko xel. Ramadan li ci li muy tàbbee ñaar la. chamban bi ñu nekk mat fanweeri fan maanaam tey àllarba ji nekk seen bu njëkk weeri fii ñu alxames ñu ngoon ajjum buñ xëyee dañuy wor wala ñu wor ñaar fukki juróom-ñeent ñu chamban nekk ñaar fukki ñu seenu weer gis ko suba buñ xëyee war nañoo wor kon benn eh, mu feeñ ci seen bu njëkk ñaari ñu baanu gis ko wala mbooloo moo xam ne ñoom ñëpp mënuñoo maase di ay narkat saa buñ gisee weer weer sax na su boobaa nag bis ba ca tege mooy bis bi ci ramadaan guddi googu weer yi feeñe mooy guddi gi njëkk ci ramadaan ci la nit ñi yéenee sëñ nga yéene woor weer yëpp benn yoon fii ak defoo lu farata ji yéene war waru la donte sopp na nga yeesal ko mm-hmm. nag lii dagg yéene mooy nga woon tukki buy wa sañ a mm-hmm. waratu la ku def loolu moom guddi gu jot da war a yéene mm-hmm. naka noonu ku wéra di woon ba dagg kooram di faju su wéree day fasaad yéene la si koor gi waaye fekkee amu benn ngànt tukki woo fi jenn yéene jooju mën na la yóbbu weer jeex waaye nag yéene fas loolu mënut a ñàkk ci koor mooy da woor njëkk fajar di jot masalan tey ku teeloon tëdd yëgul ne weeri feeñ na ñu xëy ñu andil ko ndekk ñu ne ko weeri feeñ na day jàpp buso bi nañ bàyyi xel lool maanaam <laughs> doo sañ jëfandikoo ndekk donte bis boobu da ko koy fay mm-hmm. tey ñu ne la ñàkk nga sa ndekki ba noppi Euh, lëkkoon naa ba pare fayaat bis mhm. waaye noonu la ko yàlla bëggee dangay jàpp ba nag fay bis bi ndax yéene daa war a jiitu fajar wala mu ànd ak moom kor gi doo dëgër mhm. mhm. loolu mooy seen daal li ci ah, bi mu ne ndax euh, def nañ digal de warees naa digal ci gone yi nga xam ne yu ràññee lañ ngir ñu woor wala kan la woor war boroom xam dañuy wax nag ne julli gone bu amee juróom-ñaari at dañ koy digal mu julli bu amee fukki at nañ ko bàcc bàccal ngir mu tàmm julli waaye woor nag moom dañuy wax ne dee su ko digal gone dee su ko ci gaa ndax mu ne su ko tàmm mhm. baaxul ci wér-gu-yaramam waaye gone gu coow di ko def nag kenn du ko tare mhm. waaye ni ñuy gëtënee gone ci mu julli moom dee ko def ci koor ñooñu moom dañuy bàyyi leen mhm. ci diggante bi nag buñ bëggee woor ngir tàmm ko te lor newu ca mën nañ leen bàyyi ñu woor waaye nag warisu leen cee gëtën ndax gone day tollu foo xam ne li muy soxla ci ndox ak ñoom am na nu muy woore rek mu jural ko lor yoo xam ne mën na dem ba doon mag mu topp moo tax ñu dañuy wax ne deesu ko digal muy woor ndax li tax ñuy bëgg ñu teel tàmm jaamu yàlla mooy ngi teel tàmm la koor nag lu ñuy tàgg tàggat saa bu koor dikkee nga xam ne koor ñëw kon daanaka mu su ko tàmm te lor lor mën na caa juddoo moo tax ñu ne gone deesu ko digal koor waaye nag su ko coobaree di ko def moom te nekku ca kenn du ko tere ndax lu baax la ndax jaamu yàlla gone eh, yiw la hmm. loo xam dana ko jëriñ du farata ci moom de waaye bu defee lu baax dana baax dana ko amal njëriñ Mm-hmm. amal njëriñ ay waajur euh, kii dafay laaj mu ne kan mooy am ngànt loo xam ne dana tax koor bañ koo war waaw koor ki muy teggi ko mooy ku dem ba mënatu war mm-hmm. ngir wéra di baag magee nit dana doon ba doon mag jeex kooku woor wàcc na ko mm-hmm. nit dana wéra di ba docteur yi xam ne kii mënatu ta woor mënatu toog ñetti waxtu lekkul naanu ci benn jamono ci at mi jamonoy sedd jamonoy tàngoor ñooñu war wàcc na leen ñooñu nag sopp nañ bis bu set ñu lelee am mudd mooy six cent vingt cinq grammes ceeb bi hmm. bis bu set bu ñu xëyee joxe ko sopp nañ ko ci waay waru leen sax nag ñoom woor waratu leen ndax woor ku mën la ko yàlla sant hmm. am na ñoo xam nag da leen di teggiku ab diir waaye waral teew taxul mu wàcc leen hmm. mooy boo tukkee tukki boo xam man sañ ngaa bañ a julli sañ ngaa bañ woor bu fekkee ne xëy jóge nga fi njëkk fajar di jot masal tey nga jóge fi quatre heures de matin bis boobu la neexee doo ko woor fekkee fa nga jëm mën na soixante-douze kilomètres soo dikkee fay ko woor a gën ci moom wala woor a gën moom borom bi ne wante su mu xëyul la ko mhm. léeg-léeg na tukki metti ba nga xam ne ba wooree mën na laa jural jafe-jafe mhm. su ko neexee dog su ñibbisee fay day fay mhm. naka noonu jigéen ji nga xam ne dafa wéradi dafa toll diggante docteur yi xamal ko ne ko wóor baaxul ci sa doom bi kooku day dog buy fay moom day fay rek kii nàmpal te xam ne bu wooree du am soow doom ji mën naa loru te mënta lekk kooku it dañ koy sant mu dog waaye moom buy fay day boole lele lele buy fay day joxe waale mudd kii tamit mu ne dafay dafay laaj euh, euh, ndax ki nga xam ne maanaam woor waru ko ci ngir tukki na ndax ñàkk woor googu dana tax mu mu sañ a jaxasoog soxnaam ci bëccëgu koor wala de waaw bu fekkee mook sax ñoo bokkaat hmm. dañoo bokk tukki dañuy wax sax na ci misaal nit ku tukki woon ñibbi ñibbi si bëccëg nga xam ne maanaam ku tukki woon ñibbisi si bëccëg ba mu ñibbi si moom fekk na jàpp weesu xam nga bis la si bis mu sañ na ko lekk soxnaam amoon ngànt dem ba ci bëccëg mu laab ñoom ñaar mën nañu jaxaso ndax ñoom ñëpp séeru ñàkk a woor charia nangu na ko kon buñ buñ fi jaxasoo loolu tekkiwul ne dañoo xëtt woor may ndax ñoom woor waru leen mi mel ne ki am ngànt lekk lekk mi lekk mbaa naan du bàkkaar. Euh, mbokk bi nee bëggoon na nga laabire ko ci tënk lan mooy yàq koor. koor day ko yàq mooy mabbu yéene moo ci jiitu. ndax yéene moo ciitu mooy ki jékki-jékki ni wóoratu. kooku ci misaal lay lay nit ni lekkut na fekk dog na kooram. masalan ab sëñ bu wala sëñ ndaw ko na boo xam ne kooku daa sonn rek mu ne xam daal damay dog songu fees der bi gisul lum naan mhm. mu dem ci waañ mi gisul lum lekk mu ne ah naa far toog mhm. kooku wóor yàq na kooram ndax bu muy jóg di dem ci waañ wa bëgg lum lekk tax kooku dagg na yéeneem mhm. wóorutul bu lekkee mbaa mu tey ko na kooram te yooyu sax am na ci yoo xam ne lu ci def mooy mabbe yéene ji mbaa mu lekk mbaa mu naan mbaa mu jaxasoog soxnaam yooyu bu ko defee te tey ko mbaa mu génn mën a tey koor ga yàqu na te day day fay ba noppi day kafaar mais bis bi dana ko waral ñaari weer mbaa mu leel juróom benn fukki miskin hmm. bu fekkee nag ne ngànta tax mu dog wala daa lekk ci teyu ko koor ga yàqu na da koy àggale ba fay hmm. fay bisee moo ko ci war hmm. waaye daal lekk ak naan ak tàbbal dara lu am lu am jëm mu dem ba ci sa mbaq wala sa bëri yooyu day def koor moo tax ku woor ci mësab malik ay tuufoog ay toq la ñu def ci nopp yëpp li gën mooy na koy def guddi pikiir bu dee pikiir yi nga xam ne ci yi waaye bu dee yi ñu samp butéel. Hmm. perfusion kooku day yàqu perfusion day yàqu hmm. koor. pikir daal moo dagan waaye perfusion moom dagan na waaw hmm. moom daganul ci koor nga xam loolu day taxaw taxawaay lekk. kii laaj bu mel noonu sax la laaj mu ne ndax dana dagan ci ki woor maanaam nga xam ne dafa yor asma xeeti pompe yooyu nga xam ne nit ki su crise da koy jëfandikoo ndax loolu dana yàq kooram wala loolu moom matière la buy dugg ci biir aw ñam lay ay taxaw taxawaay aw ñam. taxaw yooyu moom bu ko dalee sañ na koo jëfandikoo daa daa wéradi mooy ku wér di faju su ko defee bu bu bu bu bu su wéree eh, koor gi jeexee mu fay bis. waaye saa bu ko kiris asma dabee sañ naa jëfandikoo pomp yooyu ngir faju mhm. waaye boobaa nag koor gi day yàqu. Mhm. waaw mel ne ku wéree di digg ba ci Ramadan docteur ne ko naan jox ko ay doom mu naan. Mhm. mbokk bi dafay laaj mu ne ndax dana dagan ci jullit bi mu jaxasoo ak soxnaam ci guddik Ramadan ba noppi sanguwul janaaba ba xëyaale koor ba xëy. xëyaale janaaba du yàqu koor doon di gënul nag ay ni ki mën naa gént wala mu jaxasoo soxnaam sëngul ba asamaan set euh, mu door a sangu fekk façon na yéene woor koor ga baax na waaye nag yu mel noonu gënut ndax du julli ci bopp waxtu mbaa boog sax day fay bu julli waaye nag mu daboon it duñ wax ñàkk maanaa ñàkk sangu daal jotewut ak wéeru koor gi dara kii mu ne lan ngay lan da bëggoon na nga wax ko yi nga xam ne sip nañ ko woor di ko def yi ñuy sib quoi di ko def mooy bari na bokk na ca di mos jigéen ñi togg hmm. di mos aw ñam wala leneen dara jàllul sib nañ ko ndax yooyu euh, mën naa rëcc mos xorom mos suukar mos nangam da hmm. faral di wax sax man ne ku mën a togg dëgg-dëgg mën naa war a mën a mos yàgg na ci ba nga xam ne nii lu ne war naa xam la ci jaadu hmm. loolu bokk na ci li ñuy li ñuy sib ci ku sib nañ it ku woor ba noppi di xeeñoo gët bu fekkee ne day yëngal bànnee xam hmm. bu fekkee ne day yëngal bànnee xam na ne bu wooree mën naa yëngal bànnee xam ko dañuy sib mu woor ba noppi di ko def xeet yu mel noonu euh, yëpp day bokk yi ñu sib sib nañu woor di waxtaan waxtaan wu amul njëriñ maanaam wax lu bon moom nañ koy tere jamono yëpp waaye lu amul njëriñ lañu wax hmm. maanaam toog di waxtaan yoo xam ne daal amul benn njëriñ ñoo bëgg nit ki bu wooree mu màng bëccëg bi ci daf yu baax ak yu baax mu ne jàng alxuraan nay déglu fu ñuy wax lu baax waaye di nit ci grand place yi waxtaan lu ñor lu ñorul mm-hmm. rawatina su jamono ji nga xam ne xeet yi waxi politique yooyu nit ku woore daa war a sorel boppam yooyu fexe ba bëccëg yëpp màngu ko ci aw yiw mm-hmm. ndax passé la boo xam ne mën na cee jële yiw du jeex àdduna ak laaxi moo tax yu mel noonu dañ koy sib ci koor mm-hmm. dañuy sib euh, bañ xëdd ñu doy si la mooy na ngeen di xëdd ndax barke ngi ci ñu ko xam dañuy reer rek euh, daan ne kon li baax dëgg-dëgg mooy di ndogu di xëdd dañuy sibit nag woor nga def ko lay bu doggetee dal nga fas yéene li nga manqué woon bi lépp nga bëgg ko mottali masalan dañuy gis nit koo xam ne li mu waroon a lekk ci benn quatre heures dana ko lekk ci douze heures sax maanaam fi jant bi soo fi fajar daal moom dana fi ndékki sëriñ bi nee am na ci nit ñoo xam ne dañuy dañuy dañuy boo leen fekkee ñuy ndogu wala ñuy xëdd da jàpp ne ay nag lañ. Hmm. waaw dañuy lekk lekk ba seen biir dis gan boo defee ne di jaaxaan lañ man hmm. euh, duñ fa fa duñ tere naafila duñ tere tudd yàlla duñ tere jàng alxuraan. Hmm. nee na kooku da loolu mooy ko ndax ma ngay jàpp ne. mu ngi amul yiw te amul dara. du ñàkk lekk ak naan dong yooyu yëpp kon lu mat a bàyyi xel la. ci des it yëpp ko war a def la suñ bi santaane cër yëpp ko war a def. kon di yaf yenn yi di seetaan yu amul njëriñ te yàqalul sa koor loolu sib nañ ko uh-huh. ndax xañ sa bu aw yiw la uh-huh. bu dee loo xam nag day yàq koor dafay xaraam bu dee loo xam ne dañ la ko nga wóor koor da day gën a day gën uh-huh. nga xam ne maye nañ ku woor def ko te du yàq kooram tamit bëggoon nañ waaw yooyu de bokk na ci bu bu bu maroon ba nga xam ne nii mënta wax mu dem galax ndiku waaye nag na fexe bu dara jàll moom bu yaramu tàngee bu son yi mën naa xëppoo ndox loolu terewul nga ci koor. Mm-hmm. yu mel noonu maye na nit ki waru comme ni ñu waxoon ne xëye janaaba du yàqu koor. Mm-hmm. Euh, ak yu demee noonu pikiiru du yàqu koor. Mm-hmm. Euh, ak yu mel noonu daal maye nañ nit ki bu wooree. ba mel ne liggéeykat bi liggéey ci poussière wala yooyu la. waaw maanaam jëm mi pënd ci boppam rek. pënd ak poussière ak yooyu pënd yoon ak yooyu moom yàqu koor. yooyu mel ne ministre bi bi yooyu mu na kàttanam rek waaye lay lay rëcc di jàll du yàqu koor weñ wu sarax nit du yàqu koor. noonu daa bokk ci yiñ jéggale ñëw mm-hmm. ñëw ci loxoy nit ki. Mm-hmm. waaye lu ci nekk rek xanaa moytu leen jigéen juy togg daal cóolu cin. Mm-hmm. saxaru su day yàq koor moom. dañuy mat. ak saxaru su këriñ ñaar yooyu duñ yàq koor waaye saxaru su cuuraay ak cóolu cin dañ yàq koor. loolu mat a bàyyi loolu. bokk nañu ba mooy cóolu mooy li nga xam ne boo ubbee kubéer gi. waaw liy jógee ci ci ci ci. ñaare fi ne boo seetloo nit ñi togg. bu noppee duñ xiif. ndax loolu noonu bu day day takka yëf saa bu duggee ci biir bi fi ñam waroon nekk lay placé maanaam bu noppee duutu xiifati ndax loolu day jàpp ne kon bokk na ci lii lii tax day mel ne euh, day mel ne wóorutoo. moo hmm. tax lu mel noonu jigéen yu togg na moytu yu mel noonu. Hmm. cóolu ci bu mat saxaru mat ak këriñ nag dañuy amul loolu moom. moo tax yu mel noonu nañ ko doon lu mën a doon rek bañ ko ba ko naan moo gën. Hmm. saxaru cigarette day yàq ko kon cigarette ak cóolu cin ak euh, cuuraay. ñett yi dañuy yàq koor waaye bu dee ma takk rek ñu jégal nañ ko ki mu ne lan ngay laabiré bokk yi nga xam ne daal moom ay ndaw ku ndaw lañu waaye su koor jubee rek ñu tàmbali sama estomac bi sama ulcère bi di teg ay kii yoo xam ne waaw ñooñu dañoo bàyyi xel ne koor yàlla defu ko ngir nattuñu maanaam ngir jariñu la dama dama ci boppam buñ ko déglutoon koor sax daa war a xam ne koor daa baax ci moom maanaam eh, eh, tasawaral ab ab ab machine buy dox fukki weer ak ñaar du noppul benn yoon baaxul ci wér yaram hmm. yi liggéey ko yëpp dañuy def entretien koor nag dafa mel loolu la am diggante boo xam ne da ngay fexe ba xiif wàcc sa bari ci yow yi newoon ci yow bari na ñoo xam ne bu ñu wooree yu ñu daan jàmbar day jeex hmm. ñaareel ba ci wàllu ruux it am njëriñ ci nit ki yëg ne yëg xiif hmm. am na ñoo xam ne bu koor amutoon day jàpp ne xiif amut ndax yàlla defal leen tawfeex joo xam ne boobaa duñ yërëm kenn ku néew doole waaye boo wooree ba ngoon nga nga daj ñu la am na sa mbokk moo xam ne ci loolu la benn bis bu lekk bu suur amul boo dajee moom sa xel def ci nga yërëm ko def ci lu baax mm-hmm. Mm-hmm. bari na njëriñ yu ci nekk yoo xam ne maanaam suñu borom ci mbaaxam amul lu muy teg ab jaamam loo xam ne ngir lor ko la mm-hmm. waaye ngir bëgg ko jëriñ moo tax saa boo ci wàccee dara yow ci lor kon yàlla jublu ñoo mbugal jublu ñu mettital dañuy digal koor waaye dañoo bëgg jëriñ loolu nit da ko xam bu ko xamee ko boobaa rek bu dikkee dana xam ne koor daa gën ci moom fu mën a nekk nag koor la yàlla bindee mënta mënta sedd uh-huh. fi mu ne dangay gis koo xam ne ah waa dëkk sàngam da ñoom daanaka dañoo war a fay ñaari weer ñu waroon di woor uh-huh. ndax daa sedd uh-huh. gis nga dëkk bu sedd booy sedd wooree fa moo gën a metti dangay xiif dangay xiif bay liw da bay lox laa bëgg ah, dangay xiif bay lox masalan tey bu dee dëkk yu tàng yi moom da ngay mar waaye bu dee dëkk yu sedd yi da noonu nu mar mi mettee fii noonu la xiif bi mettee foofu kon koor la yàlla bind loolu bi ci des ñu bàyyi xel ne li ci am solo mooy koor nit ñi dañ koy def ngir wér waaye na fekk mu ñu wooree niñ santaane ñu wooree ñun nag suñu jafe-jafe bokk na ci bu ñu wooree dañuy gën a wéradi li ñuy consommé ci suukóor ak ci xorom ak diw ñett yi benn baaxu ci nit loolu moom médecin yi wax nañ ko ba tey gu bari baaxu ci nit su bari baaxu ci nit xorom su bari baaxu ci nit day mel ni bu ma daan dikkee nag nit ñi dañuy xër bi ci des it seen blaat dañ doon woor ngir wàññi ay frais mm-hmm. ñun nag bu Ramadan dikkee dañuy yokk suñuy frais koy day mel ni doy na war dañ koy wutal beneen dépasse waaw xam nga mbuusoo boobu doon wax ne bu dogo yooyu muy def loolu muy def ci mburu yi <laughs> ak loolu muy tegale ba fajar kooku maa da nga xam ne sëñ bi loolu jéggi na dayoo ah, te it nag loolu bari la nag ah. en fait nit ñi dañuy dog ndogu reer xel wax yàlla diggante bi luy xaju suñu la di diggante dog ak ndogu rek li doon sunna yonent bi sallallahu alayhi wa mooy bu dog jotee tàndarma lay doge ñetti doom juróomi doom daal di galaxandiku dem julli bu ñëwee ndogu mu jeex lu bari tudde ko dog war na door a boo ñëwee door ndogu dem ba ci kanam ñu ne reer bu njëlee ñu ne yeewu xadd xaju fi sañu black waral nit yaram gimi ñaari yoon lekk ko doy na ci bu ko ñu defoon seen dépense dana wàññiku seen wér-gu-yaram dana gën a yokk seen i jàmm yàlla dana gën a hmm. bari na ñoo ne fi ne naafi dañuy fexe ba naafi la rek <laughs> bu ñu sax ñaare léegi léegi bu ñu noyyi ñaare duñ mën a noyyee bakkan dañuy ngaa loolu nag sëriñ bi jàngaloon nañu lor yu bari ci nekk hmm. ndax boo ko defee yaa ngi di am nga tuyaaba te fekk amoo tuyaaba hmm. li ci desit it koor ni ma ko waxee woon sànq si daal cër yëpp ko war a def lu islam noonu nag koo xam ne bàyyiwul wax lu dul noona ak def lu dul noona mhm. jërul nga bàyyi lekk ak naan yàlla amul soxla ci koor goo xam ne ci ah, ci ci lekk ak naan la yam mhm. am na ñoo xam ne moom duñ lekk duñ naan waaye lu lool nag bàyyiwuñ dara am na ñoo xam ne bëccëg bépp dañ koy nelaw guddi gi ñu fanaane ko saq bi mhm. am na ci nit ñoo xam ne la ñu war waaw waaye nag du koor sëñ bi <laughs> nit ki bu koor jeexee wax dëgg yàlla bu dee buñ dee yow war nañu yëng da doon waaye am na ñoo xam nag ñoom dañuy jàpp ne luy lu lu damaa jeex dañuy foog ne da nga lekkul <laughs> waaye dëgg la koor na loolu mel mhm. boo noppee da nga yëg ak woyof bi ci de it nag yu baax yiñ ci fonk mhm. jàng alxuraan gi saraxa yu baax yëpp day tonawu ci koor mhm. ndax passé bi yiw la loo ci def ci lu baax day yokk ndax lu waaye mën ci lu baax na ko def waaye bu jàlla it nag bu ko dagg day mel ne rek euh, kuñ dugal ci ab ab ab barab gi di ko tàggat lañ koy tàggat nag dañoo bëgg bu jàllee mun bu téyewut lépp dina na ci lu bari mm-hmm. ay fii day ñaare day gis ko góor du jàkk ji du ko wóote bu koor rek waaye fu mu waree rek jëlal yëpp dencaat mm-hmm. mooy du noonu moom mm-hmm. yàlla dañoo bëgg boo jógee ci koor gën a baax borom xam-xam dañuy wax ne bokk na ci li ñuy xamee ne nangu nañ sa koor bi koor yàlla nga gën a baax mandargam sa koor nangu na la mbokk mi nee a daf bëggoon nga nga tënkal ko lan mooy faratay koor ak sunna yi. koor ñaari farat la. siyaamu naa la foofu farida daal. Hmm. mooy yéene ak téye sa bopp ci lay dogloo. da ngay yéene jiitu fajar. bi ci des it lépp luy tax dog muy lekk ak naan ak jaaxasoo nga bakko hmm. sunna yi gaaw a dog ci la bokk ginnaaw bu jant bi sooyee ak yéex a jëkk fajar ak téye sa làmmiñ ci wax ju amul Uh-huh. te sunna yi la am gaaw a dog say bilaat mooy nga dog door a julli timis uh-huh. loolu nag dinaa ko faral di wax gaaw dog mooy sunna waaye gaaw a ndogu du sunna uh-huh. bàyyi xel ñaari bokkuñ nit ñi dañuy gaaw a ndogu léeg-léeg ñu yeexal waxtu wi sax ngir bëgg mën a ndogu waaye dog nag lañ santaane dem julli ji boo na fay booy ndog nga doon ndog waaye faaw ñu bàyyi xel loolu xëdd it sunna la kenn wax ne man lekk waxtu woowu arrangé wu mu naam sunna sunante bi nee dee leen xëdd ndax barke ngi ci kon ñiy mbëssan moom di bañ a xadd kon xadd gëndal waaw bi ci des it xëy na xëy na xëdd mën nañoo xam ne kañ lay tàmbali bu guddi gi weesoo xaaj rek loo lekkati yéen a ci xëdd xëdd la sulus bu mujj bi waaw déedéet nis guddi weesoo xaaj hmm. loo lekkati yéen a ci waaye nag dañoo sopp mu jege fajar hmm. kon ñaar la bëgg nañ sopp nañ nga sunu la nga xëdd waaye nga def ko nga xam ne boo nappee toog fukki minute ak jàpp jot waaye nag bu guddi gi weesoo xaaj rek moom looy lekkati boo ci yéene xëdd am nga tuyaab yàlla xëdd waaye yeexee gi moo des waaye am nga yàlla xëdd moo tax loolu it ñu buñ ko bàyyi xel li ci des it xëdd tekkul na da ngay tiim ndab ko sex mhm. boo yeewoon jël ñett doomi tàndarma lekk ko naan ndox yéene ci xëdd xëdd la tuuti rek mhm. waaw tuuti xëdd la mhm. waaw waaye yooyu moom nañ ko fonk teel a dog ginnaaw bu jant bi sooyee waaye nañ ko bàyyi xel waxuñu rek nga ñu ne teel a dog rek nga daal di yàkkamti ba nga xam ne léeg-léeg nga doog ba noppi jant bi di feeñ. Mm. wala ñu ne la yeex a xëdd nga ne ba ñu nodd nga doog a xëdd yooyu dañ ko bàyyi xel bu bu waxtu wi xasee tàbbi bu kenn wax naan nodd gi daanagul nodd gi balaa tàmbali waxtu wi tàbbi. Mm. kon bu ñu xasee yëkkati nodd rek wax daa fekk wax tàbbi ba noppi kon foofu ku fa lekkati bëccëg nga lekk. Mm. loolu boo ko tayee kafaara da cee war. loolu na bàyyi xel. ki nga xam ne day woor te fonkut naafila te du naafila nag moom luy ab atem waaw xam nga koor ak ndigal la naafila ndey ndigal la hmm. niñ bëggee kuy naafila ci koor noonu lañ ko bëgg bul koor koor raw hmm. ndax dañoo bëgg ngay wor bëccëg gi di naafila guddi yi hmm. kon ki naafila wut nag xañ na boppam aw yiw waaye teewut nag koor gi moom bu jaaree ci yoon am na yoon koor waaye nag xañ na boppam yiw bare bari lu mat di bàyyi xel la ñu xam ne bu ramadaan dikkee dañoo bëgg nga fonk bëccëg yi fonk guddi yi bëccëgee nga woor jàngal xaan bu guddee ngeen naafila lu baax loo man ci yi di ko def ndax parce que yonent islaam ni yàlla wàcce woon ci alxuraan wax nañ ne bu ramadan masan dikk jibril day ñëw di ko nafaraat alxuraan yëpp atam mujj ñaari yoon def na ko bis yëpp ci koor rawatina fukki fan yu mujj rawatina gudd yu tool yooyu moom ibnu islam li ëpp ci guddi gi da daan jaamu yàlla digal waa këram yi ñu def noonu di ko laatikaaf ci jàkka ji digal ko waa këram yooyu moom yu baax la ci ramadan ñu di ko bàyyi xel waaye daal def ci lu baax moo gënal yàlla daf ko ci yeneen bis moo taxit nag mooy ci yàlla gën a bon ndax boobaa moom kenn du làqutoo seytaan ramadaan moom yonent bi nee na dañuy jëng seytaan yi ubbi buntu aljanna yi tëj bunti sawar yi mooy lu baax day yomb ab safaan day jafe kon ku ku ku ba kanamay noot nit rek dafa ko safaan waaye bu mu waxat bu mu lay taw seytaan seytaan jëng nañ ko moo tax lu mat a bàyyi xel la yu baax day yomb kon fexe ba xente ci bi ci desit lu waaye man ci fexe ba dimbule ko woor su nee na ku dogal aji woor lu mu néew néew am nga yoolub koor ga te du wàññi dara tax yu baax yooyu du taxeeb lépp aw yiw la waaw koor bu dee fi mu tàmbalee fi mooy li ñuy woor mooy bu jant fajar la ñuy tàmbalee woor bu jant bi so maanaam nit ki war naa bàyyi lekk ak naan balaa ñoo nodd fajar maanaam ci misaal bu ñu nee tey six heures quinze seize minutes la ñuy nodd fajar li gënoon balaa six heures nga nopp ci lépp waaye boo demee ba six heures quinze wala si baax na nga xam daal noppi nga ci lépp waxtu door tàbbi ba buñ ne sept heures la jant bi soo bu sept heures seize nga dog bul ne damay nekk ba mu lëndëm bul ne damay jul door dog ndax sunna si mooy nga teel a dog loolu mooy seen su loolu moom diggante cëg la ñuy woor bëccëg na mooy diggante boobu jërëjëf kon ñu bàyyi la nga tàggatoo Euh, di seetlu di sant mbokk yi di ñaan yàlla ñu ak si koor gi ak jàmm suñu borom dafa la ñuy feex ndax ku ñu dimbali rek moo ko mën a màng li ci nekk aw yëpp yàlla na ko yàlla defal ñuy siyaare baax di ndokkeel it Mawlana Cheikh Mouhamadou Mountakha di ñaan suñu gën ko sàmm gën ko dëgëral taxawaay yu rafet yi am ci diine ji am ko ci ramadan ak weer yëpp ñaan yàlla gën ko dëgërël gën ko dooleel di siyaare mbokki Moukhaddamatoul Khidma it rafetlu seen taxawaay ci ramadan am na solo lool ci wàll yëpp wàllu yëpp ci jariñ nit ñi ci xam-xam leeral seen diine waaye bernde yi leen toggal di iftaar saa yëpp nga xam ne li ci nekk aw yi kenn xam nu toll mm. ak mboolem ñi ci jàpp yal na yàlla nangu yëpp barkeel leen amiin wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatu jërëjëf sëriñ Mbacke Abdourahmane yow ñu ngi lay sant bu baax a baax te di la ñaanal di sant it euh, mbokk yi nga xam ne ñoo ñu doon topp ci seen seen GMT TV wala MKTV di sant it euh, Serigne Abdou Khadir Bousso ak Serigne Cheikh Diop Serigne Mouhamed Ngom di xamle nag émission gàggantiku bi incha allah ci biir koor gi moom euh, du jàll waaye képp koo xam ne am nga laaju diine Serigne Mbacke Abdourahmane yi ci mufti yi nga xam ne dañuy ubbee ci biir Ramadan la bokk boo indee laaj bi ci jumaa ji danañ ko tont wala nga yónnee ko ci numéro bi ba tey danañ wéy di tontu laaj yi ci biir koor gi ndax dafa am ay jotaayu fatwa yoo xam ne euh, bokk na ci biir tomb yi nga xam ne daayira Muxaddamatul Xidma daf koy. waajale ci koor gi incha allah fanweeri fan yëpp day am ay waxtaan ci biir jumaa ji bu cinq heures mi jotee ba euh, waxtu jot dog di jot ñu koy ànd ak borom xam-xam yu mel ne sëñ Mbàkke Abdourahmane kon su ko defee képp ku am ab laaj boo ko yónnee ci whatsapp tamit ci numéro bi euh, danañ mën a wéy di ko tontu ci biir koor gi muy 77 531 91 98 kon ñu ngi leen di dig daje incha allah bu ñu wareek jàmm ci seen beneen jataayu émission gàggantiku